2022 sunu gan Seynabou salam Mbacké salaamaaleykum. Wa salam ñu ngi lay euh, nuyu. Euh, nga nekkoon ay jamono ci jamonoy lay Wade ministre euh, entrepreneuriat féminin ak microfinance dëkk ca mermose Sacré-Cœur fa nga xam ni fa nga doon candidat ci élection dimanche euh, Barthélémy Diaz ma ne maire jamono ji moom it candidat la fa naam tam moom candidat la ville de Dakar wàllu askan wi wàllu Sénégal mooy mbootaay gi nga xam ni moo ëmb parti yi di PDS ak ña koy jàppale ci élection yi ñoom lañ sant yaay seen candidat foofu ca ca Mermoz euh, Sacré-Cœur euh, Barthélemy ñu ni maire bu baax la moom moom noo koy songee. <laughs> merci beaucoup Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu euh, la RFM di nuyu tout le groupe TFM di kontaan trop si dalal bi ngeen ñu dalal di nuyu waa commune de Mermoz Sacré-Cœur di wax ne Barthélémy Diaz euh, évidemment euh, ñun té dañu taxaw pour jëlaat maire bi ci ay loxom et je pense d'ailleurs que le maire Barthélémy Diaz il a fait certainement des choses je suis pas là pour défendre son bilan mais je sais que d'Al, population commune Sacré-Cœur Mose yep gis nañ ne son bilan est largement insuffisant ba nga xamné tay ñun dañu taxaw takku takku nak vraiment on ne fait pas de la figuration dañoo ñëw pour que Barthélemy Diaz xëy na nag moom ñu ngi koy ñaanal la ville de Dakar mu am ko mais commune Mermoz Sacré-Cœur moom wax dëgg yàlla toutes les populations taxaw nañ pour que mu am un changement. noo ñaanalee Barthélemy Diaz ci commune Dakar te ngeen am candidat yéen itam. non bon je dis ça c'est de la courtoisie euh, républicaine xanaa da ngeen bokk rek. non non c'est de la courtoisie républicaine je dis tout, tout hmm. simplement commune Mermoz Sacré-Cœur moom moom xam naa ne daanaka tàggoon na daanaka tàggoon na sax baat boobu ren boo gisee ni muy doxalee campagne am sax nga xam ne daanaka commune bi moom dafay tàggoo fulaalul Mermoz Sacré-Cœur déedéet déedéet moom hmm. foog naa ville bi lay defal campagne hmm. mais commune bi moom xam na ne fi mu nekk nii changement te nag am na lenn loo xam tamit dama koy rappeler parce que Barthélémy Dias dafa xeex nag wax waxeet te fi mu nekk ñetteelu mandat dafa def wax waxeet ndax dafa taxawoon si commune bi man maa doon président comité développement local mu ne partout ne du ma troisième mandat donc ñun sax dañ jaaxle bi bu taxawee ne day def troisième mandat daf ñoo jaaxal kon moom déjà wax doon la def te loolu it ne wax waxeet du jàll ci commune bi ndax pour changer. Euh, ne euh, euh, bilan bi nga ne Mermoz Sacré-Cœur c'est insuffisant insuffisant yi fan ba tax ngeen bëgg faa jële ngir toog euh, jël place am. bon xam nga euh, aujourd'hui man je ne veux pas me focaliser on a 20 minutes. Hum. bëgguma focaliser autour du bilan de Barthélémy Diaz. mais fu doxut fa ngeen fa ngeen bëgg a defar parce que Barthélémy Diaz je pense que ku taxaw 12 ans. Hum. nekk ci commune ne day wut euh, mairie dina taxaw joxe bilan moom foog naa invité ngeen ko à plusieurs reprises war na joxe bilan mais ñun daal man dama bien placé pour en parler. Hum parce que je suis président du comité de développement local de la commune depuis 5 ans Nous sommes en étroite collaboration avec le conseil municipal Nous avons au plan de la sécurité tey sacré que bokk na en danger Timis Timis bu d'ailleurs y a eu des crimes gis au niveau au niveau de la commune Il y a eu des viols une petite fille qui a été violée et tuée au niveau de la commune Tay insécurité mom au niveau de la commune djegina dayo ah lolu mairie bee. Tay bo jëlee le problème de la dégradation du cadre de vie le cadre de vie dafa dégradé complètement Tay li nga xamné ni ñun tay biñ doon jënd Sacré-Cœur suñuy emprise lépp nga xamné ci prix villa et la bokone. Tay véritablement nous sommes étouffés moi je dis toujours que nous avons un problème de santé publique ndax tey bu fekkoon ne incendie mahara détail yàlla nañ si yàlla musal am na lu xew biir Sacré Cœur biir commune bi je veux dire pour génn ba jël les axes euh, principaux rek dinañ am problème donc tey dégradation cadre de vie moom c'est un constat général tey boo gisee l'employabilité des jeunes c'est un problème également général donc euh, tey daal je pense que euh, le bilan moi je parle pas de Barthélémy Diaz, c'est un bon petit frère hein je parle du bilan du conseil municipal

wala di woo ay ne dama and ak jigéen ñi ak les associations de femmes and ak les populations de toute la commune ñu taxaw autour d'un idéal commun c'est naka lañuy def ba euh, soukali suñu gox. mais yaa ngi wax euh, dégradation euh, cadre de vie bi et pourtant gis nañ ci wàllu espace public de na ci lu bëri ak itam tout simplement muy réceptionné canal bi nga xamante ne dafa ubbeekoon ñu tëj ko. Bon, à quelques jours après 12 ans, euh, en pleine campagne électorale, à quelques jours de l'échéance, bon, nous inauguré, c'est bien, j'applaudis, mais je pense qu'on avait eu aussi 12 ans. Bon, maintenant, si vous permettez, moi, je veux venir à mon programme. Parce que franchement, comme Nimalène Kouaké, je me porte par Barthélémy Diaz, et je ne suis pas là pour parler de Barthélémy Diaz. Moi, je suis là pour parler de man lan lay proposer samay m'a commune Nous, nous un am programme pour am il faut dire que déjà au niveau des femmes Nous avons un constat désastreux que aujourd'hui les collectivités qui sont gérées par les hommes franchement à plusieurs niveaux à plusieurs points de vue manquement. ay manquements mais manquements yoy c'est pas lié euh, au fait que avons une volonté def non mais je pense que c'est un déficit de sensibilité les femmes sont des mères sensibilité bi ñuy am ci seeni njaboot sensibilité boobu la ñuy am ci gox yi. loolu nag jigéen ñi dañu koy dóoree rek. déedéet dóoree wuñ leen ko Babacar moo tax ren ñu ñu ñu ñu fexe ba nga xam ne am nañ 107 femmes qui sont investies musul am léegi nag nous avons réussi nous le défi de l'investiture maintenant yéen foog ngeen jàppale ñu ndax yéen aussi TFM maa ngi koy wax keroog Babacar ne leen yéen góor ñi rek ngeen di invité du ngeen promouvoir jigéen ñi. Yen fi les candidatures je vous ai dit il y a 107 femmes qui sont investies combien de femmes ngeen fi invité tête de liste 107 mhm. femmes Yen si 107 yooyu ñaata ngeen fi invité seeni plateau goor ni ngeen kay jox donc les les femmes aujourd'hui waaw ah, ñoom itam ko ci invité mu ne bu ma xëyee damay topato xalé yi du ah, mën a ñëw fajal ah, lol tamit mënu neex la gérer man paré julli rek taal sama auto ma dawalal sama bop sama chauffeur ñëwul ma dawalal sama bop ñëw femme bi da ngeen di wax nonu rek mais femme bi aujourd'hui takku nañu pour essayer de changer les choses parce que y préoccupation une préoccupation. ci biir a une préoccupation. mais changer les choses comment ak ce leen di changer Ce leen proposer. bon li may proposer man dafa lair. déjà dafa am benn axe boo un fondamental dans sama programme C'est ce bëgg je veux parce que mënuñu wax les 20 minutes Il ñu am muy axe qui est naka une meilleure adéquation entre les ressources que nga xam mairie bi am na ak emploi lan ressources xam nga ressource mairie bëri bëriwul fonds de dotation impôts et taxes ak yooyu bëriwul ñun même si on parle de 3 milliards nous faisons partie des communes les mieux dotées mais quand même ça reste insuffisant maintenant lan mooy emploi employé emploi mooy toutes les préoccupations des populations lépp ce sont les emplois ressources yi ñu am nag moom moo servir à régler les préoccupations des populations. En termes de cadre de vie, en termes des écoles élémentaires, parce que moi, mon ex compétences, parce que vous savez, les compétences transférées, au niveau des communes, c'est employé. On ne va pas les lister. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Nous avons un problème, et ça, c'est dans toutes les communes. Moi, inadéquation. Ressources et employés, amul adéquation. au niveau de ces ressources, xarañte maire bi vision maire bi ak xam fan la jëm ak fi muy expérience te loolu yëpp yàlla dajale ko ñun ñu am lu mu koy defee fu mu koy jëlee naka lañ koy defee ñun nag niñ koy defee ñaari axe lañ am dañu am benn axe boo xam ñun au niveau de la commune dañu am loo xam ne c'est spécifique mooy les entreprises yi yi nekk ñun dans notre commune dañoo bëri les sièges sociaux toutes les entreprises enfin le maximum d'entreprises pourvoyeurs surtout d'emploi ci commune bi la ñu nekk muy Orange muy Expresso j'ai pas fait de la pub les banques les assurances ñoom ñëpp ñu ngi fii donc aujourd'hui si on exerce la responsabilité sociétale des entreprises. Si on exerce la responsabilité sociétale des entreprises, vous exercer la responsabilité sociétale des entreprises ça nous permet d'abonder les ressources parce que ce sont des produits ndax comment l'exercer si nous faisons des projets et des programmes importants ah voilà voilà vous def des projets et des programmes qui avons un solo parce que y nit ki bo demee des des euh, au niveau d'entre de certaines entreprises qui sont sérieuses da leen jox lu sérieux donc da ngay defar des projets et des programmes ñëw si entreprise yi nga xamné c'est le périmètre communal ne leen man kat li bëggoon ngeen ma mais de façon concertée mais de façon organisée ba nga xamné lolu tay le ko defoon ak entreprise yi nekk si suñu commune lolu ñom dañuy sawar si jàppale ñu au niveau de la commune parce que le périmètre communal et puis c'est un droit la responsabilité sociale des entreprises sociétale des entreprises c'est un droit mais nag tey politiciens yi boo maire politicien lu muy def day dem soxla na des manifestation seeti une entreprise mu jox 20 millions etc. pour lui-même et ses manifestations mais pas pour la population Nous, devons dañu au cœur au cœur de notre programme parce que faut abonder dafay yokk ressources yi mairie am ñaareel bi mooy acte 3 de la décentralisation dafa joxe loo que les mairie ba tey duñ exercer moi, tey ministre des finances ni mo mune engagé responsabilité état du Sénégal wouti ay ressources nonou la maire bi meuna engager engagé la commune wouti ay ressources donc tay loolu aussi xarañte ak sa njàng ak sa compétence ak sa expérience meuna la may loolu nga meun ko def. lan précisément ay emprunt obligataire wala lan ndax gis nañ mu indi won fi coow diggante gouvernement beeg euh, mairie bu Dakar. xam nga au niveau de la ville parce que loolu tamit c'est un problème parce que. effectivement parce que boo leen def aussi il faut bi garantir leen. waaw xam nga nag état central aussi moo tax aussi euh, mais euh, population yi war a fal ñoo xam ne tamit am nañ un esprit de responsabilité parce que esprit de responsabilité bi nag mooy nga xam ne yow say population la fa fal kon nag yow it war nga euh, naxante ak état central quel que soit nag sa parti politique war nga naxante état central ba nga xam ne say population li ñu soxla nga mën ko def. mais nak bu nekkee xeex ak xulo ak saganté nga nek ak l'état central je ne cite personne mais effectivement ñooñu tamit xëy bloqués. dañ la bloqué bloqué bo xamné qui bëgg def euh, du mëna parce que l'état central <laughs> comme son nom l'indique c'est l'état central leneen wax nga ko sànq maanaam euh, responsabilité sociétale des entreprises ngeen fas yéene faa sukkandiku ngir euh, suqali commune ba nga xamante ne moom ngay yootu euh, certes nee nga droit la waaye est-ce que foofu ngeen ko bëgg a tënk ndax donte sax droit la entreprise mën nañ leen rétorquer leneen li ñu mën a def ak li ñu mënut def bu fekkee ne amul foo seet foo leen fas yéene jëlee ressources yi. non xam nga déjà nee naa la dañu am les ressources sont affectées. Mhm. il y a les fonds de dotation il y a les impôts et taxes donc loolu déjà je vous ai dit qu'on a hum. pratiquement ëpp 3 milliards te le budget toujours de yokk loolu déjà c'est un acquis hum. mais je dirais que nan les nuits def ba mën a ressources Nous ñun dañu am spécificité bob gis nga loolu bu ñu exercer ou lu am solo une société comme Orange man bu ma ñëwoon def un programme de pavage ne la zone une ba la zone 6 de Sacré-Cœur dama bëgg ñu pavel ma ko xay ma ko jox le projet dañ koy parce que ce sont des entreprises qui font 200 milliards de résultats nets hors charge. Si vous avez un périmètre communal et puis ñoom seen kii Si c'est un... je veux dire loolu dañ koy bëgg a dañuy tiitaroo et puis am na lu def hein, am a def maintenant au plan de la santé également on a des problèmes sérieux est-ce que vous savez que ñun ci suñu euh, périmètre Sacré-Cœur wax Mermoz a nañu poste de santé. Sicap Liberté moi, euh, xam nga côté Sacré-Cœur euh, Liberté 4 c'est ci commune bi la Nous am un poste de santé mais ñun amuñu. Ah, yéen kat ay patron ngeen ci clinique yi ngeen dem. patron wu lan ñun hmm. amuñu poste de santé est-ce que hmm. gis nga patron yooyu Sacré Cœur loolu war nañ ko teg ci suuf xam nga lu tax parce que boo gisee dans les maisons les parents son à la retraite léegi parent yi ñoom ñëpp retraité nañ xale yi liggéey da ngay gis benn kër boo xam ne am na fukki nit benn revenu bu permanent amu fa d'ailleurs d'ailleurs am na benn problème bu sérieux actuellement bu am euh, bu am dans la commune mooy le problème de la drogue. le problème de la drogue yéen journalistes yi maa ngi leen si interpellé. Hmm. ngeen def si des enquêtes. léegi da ngay gis des jeunes des jeunes garçons nga xam ne si koñ bi la ñuy toog làqatuñu toog yore seen i ay joint mais loolu désœuvrement ak ak ak ak ñàkk li ñu def ak ramener l'ambition des jeunes au plus bas. loolu tey mooy résultante boo xam ne lu dangereux la aujourd'hui dans les SICAP et faut naa ne fépp la si Dakar. Hmm. léegi euh, dimanche moom euh, faw yaakaar nga di nga gàddu ndam laa ah loolu moom loolu moom waxaale wuñ ko sax loolu moom si du yàlla parce que ñun xam nga xam nga nag Sacré Cœur euh, Mermoz Sacré Cœur dañu am benn spécificité mag ñee fa ëpp ah. il faut il faut faire je pense que avec l'ANSD d'ailleurs demandé woon naa sax euh, à l'ANSD benn euh, euh, les statistiques. Mm-hmm. mais ils n'ont pas pu me me, répondre. da ngaa jàpp nal mag yooyu ñu ngi si ginnaaw. répondre ma mais foofu euh, c'est-à-dire ñi fa nekk dañu nekk des responsables nek nak euh, ay intellectuel euh, de haut niveau ay ay ay euh, universitaire et cetera donc discours yi liñ leen di servir dañ koy dikk. manam yeen yeen yeen da ngeen a compter ci ñi nga xamni ñom ñoom wax ñi mature. borom maturité parce que ñoo fa ëpp d'abord abord ñoo fa ëpp ba pare aussi les jeunes nous vraiment beaucoup de jeunes sont avec nous parce que gis nga fofu dal c'est une demande sociale. ba télé Dias ñu ngi koy ñaanal mais mais moo sacré que daal tàggoo tàggoon nañu ba pare mom ak Mbacké <laughs> candidate wallo Sénégal ci.